défenseur farouche la bu euh, bu régime alors euh, Thiat Thiat mën saa bi yaa ngi direct Dakar ak si mën jox sa direct par rapport à manifestation bi ak par rapport à prestation bi waaw et de plus la rek ci réew mi donc il faut que Macky xam ne tiital bi du jàll donc tiital xokkatal tëj torturé du tax nga jàll du tax nga def troisième mandat du tax nga def troisième mandat du tax nga forcé donc peine perdue la Macky jàppoon ñëpp jappal ñëpp bu tax def troisième candidature loolu dafa leer donc perte de temps la pour moom sonal doomu adama yi bind nitu kaso yi bind nitu bit bind nitu yëpp yàq institution yi pour peine bi parce que du def trois mandat loolu problème la loolu laa bëggoon wax Salut. ah gis nga gars yi ñu ngi jàpp ni vraiment euh,